malgré lui mais sauver le Sénégal parce que dafa bëgg dafa bëgg Sénégal dé. jaajëf Nefertiti dafa sauver Sénégal pour nek président mais il a sauvé le Sénégal malgré lui parce que dafa dem ba ci biir sax ñu bëri naan Sonko la andalak, ak ah, ah affaire Mame Niang bi mom moko mom moko mom moko divulguer divulgué affaire 94 milliards mom moko wax Sonko parce que mom ak ñom Sonko ñoo doon julé ndok ñu ma xamul Cheikh Bara Ndiaye tam mom dafa yag na wax ay mbir mais Cheikh Bara tamit ñepp xam nañ ne nekkate nekkate ku mëna tawila parce que nee na euh, Amadou Ba ak Sonko ba ñu nekkee impôt domaine ñoo daan julleendoo bu Amadou Ba jullee jàppee carax tooy Sonko moom lay jël carax yooyu moom lay jël dem sol ko waaye Cheikh Bara fi mu nekk nii li mu daan wax yëpp kenn mënatul wax ndax dëgg la walu dëgg parce que moom day taaw yi Cheikh Bara Ndiaye day taaw yi waaw ngeen baal ma sama idole la woon de waaye man nag damaa xam nit parce que bu demee ba toog di wax ne moo ko seen bas toog nañu sept de temps

ah 1400 fois looloo tax ma génn di jéem a justifier mouridisme ba tey kii dal ko booy Kola dal ko dal yu métti Cheikh Bara Ndiaye ñëpp xam ne kat la dafa mën a taawi parce que lislaam day wax boo fenee am na fen yoo xam ne du bàkkaar parce que da ngay fen pour jéem a defar moom Cheikh Bara Ndiaye noonu lay def ngeen baal ma nag kilifa la du wax ne day fen fii la wax ne Ngagne Demba Touré ba muy ñëw daf ko woo mu ne ko bul bul ñëw loolu gëmuma ko Cheikh Bara Ndiaye Cheikh Bara Ndiaye yemal ci analyse politique waaye bëgguñu forcer Touba ñun duñ ko nangu Touba bëgguñu bëgguñu ñu parce que sëñ Mountakha dafa ne dafa ameel bor Ousmane Sonko sëñ Mountakha dafa ameel bor Ousmane Sonko waaye ba ñu demee ba war a fay bor bi sëñ Mountakha Cheikh bas moo génn mu ne may leen ñu jàmm may leen ñu jàmm sëñ Mountakha ne ne bu bu Macky Sall avant muy muy ñuy tëj Sonko ci contumace bi sëñ Mountakha dafa génn mu ne fii ak weer dootuma recevoir kenn Touba. dañoo jël bay Fall ñu né kenn du fa ku fa yëngutu politique mu door sa dal sa kaw loolu gis nañ ko fi Touba jékki-jékki né kenn dootu fi voter té ba élection yi ñuy wax est-ce que Touba dinañ voter loolu ba légui kenn waxu ko parce que sëñ Mountakha dañ néwon woon dañuy jël bureau de vote Touba yi dañ leen di dañ leen di yóbbu ci àll bi am ñoo xamné ba jour ba dama li ragal moy jour élection yi le 24 wa Touba dinañ dem pour voter ñu ne leen seen bureau de vote mi ngi Diourbel kon Cheikh Bara ndjay loolu yëpp jot na fi am tey nga bëgg ñu gëmlo né Cheikh Bass moom moo libéré Sonko wala sunu taxaw moo libéré Sonko lolou duñ ko gëm té ba nga ko waxee ba légui ana Sonko est-ce qu'il est libre est-ce que Sonko dafa libre kon Cheikh Bara bul wax ne yaa libéré Sonko té Sonko génnagul ma jambal nag nak néna Sonko day génn tay té man gëm nako <coughs> ndax semaine passée Madiambal moo ñu wax ne gouvernement bi dañ koy tass lolou breaking news la moo ñu ko jox muy dëgg bu ñé Sonko day day génn kasso dinañ ko gëm parce que Sonko Macky Sall dafa créer loi d'amnistie loi d'amnistie bi ngeen di xas nak man dama ka me se supporter man lan la contre dialogue dialogue anduma ci won parce que amuñu luñu ñuy dialogue ak Macky Sall ci repousser ay élection ba ba juin ba juin lolu man dama né cour constitutionnel limu def julli ñaar rak fajar julli ñaar rak la lay doon ba ila yawmi diin cour constitutionnelle la organiser élection yi dans les meilleurs délais c'est dans les meilleurs délais moy fexel ba avant le 2 yow ya dëgër bop bëgg nax nit ñi dialogue bi Pape Alé di woote ak Karim Xurum Xaq toog di wax ne Macky Sall il faut mu waxtaan ak Sonko non Macky Sall il faut que waxtaan ak Sonko lan la ñuy waxtaan ak Sonko Sonko leen rek nga mën a waxtaan ak moom kaay génn ñibbi sa kër boo nekk président bul ma jàpp loolu mën nañ ci waxtaan waaye ay élection koy dàq wala léegi lii loolu duñu amuñu li ñuy négocier ak Sonko Pape Alé Niang waxam yooyu muy wax na ko jël mu teg fale bu jugee di xas conseil constitutionnel Pape Alé Niang

kon conseil constitutionnel gàcce ngaa la ma bàyyi leen conseil constitutionnel maître Tall tamit avec l'homme au torpédo là génn fi di wax ne conseil constitutionnel dafa yokk mandat Macky Sall mais kooku blasphème la blasphème loolu warul génn ci gémmunu avocat même bu doon dëgg la waroo ko wax conseil constitutionnel dafa yokk mandat dafa yokk mandat Macky Sall nii la ko waxee Pape Alé Niang te Pape Alé Niang moom moom lépp moo ko wax Papa Alenya, mom lepp mom je suis koy manigancé mo invité Maître tal wax invité Karim Karim Xurum Je Karim invité à nek fi di wax waxu dof Macky dafa wara a ak ak Sonko lan lañ Karim Xaq bala may sol solom di jay boy rappeur Il est yi xam nañ à rappeur euh, Ngaka Karim dem keroog bi mu génnee kaso wax gars yi leen ma son bi waaye gars yi may leen ma son bi yéen da ngeen a xew yi yéen ak ñoom caat euh, Y'en a da ngeen a xew bàyyi leen rab bàyyi leen rab waaw Karim Xurum Xaqa lenn xam nañ ko activiste la yemal si so rôle activiste mais du yow yaay wax Sonko li mu war a def waaw waruloo wax Sonko da nga war a waxtaan ak Macky Sall Pape Alé xam nga ne Pape fu mu invité Karim Xurum Xaqa loolu rek la pour jàllale ay message moom moom bu waree def live. comme démb seetaan naa tout ma mais Pape Alé papa Pape quoi live jambat rek rek rek live jambat rek ah Macky ya def lii yaa def laa Macky yaa def lii Macky yaa def laa menatak ñun li ñuy wax bi bu c'est son problème waye bu talu rew mi dañ koy sante parce que fimu nek ni li tax manelene Amadou Ba du nit gis ngeen ki ma won sank muy Antoine diom lan moo tax mu génn ci gouvernement bi tay yéen do len xalat waw xaral xaral dom xaram yi dom xaram yi kuma saga ma génn la fi waw yeen ay dof ngeen ay vrai dof ngeen ay vrai dof ngeen ngeen balma bëgguma sax nek fi di xassante ak mais pap alenia ragal la ragal ben acte la fi def pap alenya ba muy nek géré deug dañ ko don tag man ne sax amna na ay temps sax mané bu son ko nek président pap alenya mo wara nek président parce que temps yu doon xeex dëgg deug mooy kañ affaire Adji Sarr Pape Alé Niang moo PV yi capitaine Touré li la wax li la wax temps yooyu la nekkoon géree ba mu paré ci PV yi kenn dara mu guéné rapport gendarmerie temps yooyu la pap alenya guéné nek temps la nek xaaral kii di ma saaga te boo demee dafa woor de kooku di ma saaga nii boo demee dafa woor gis nga Pape Alé temps yi muy génne rapport gendarmerie ci affaire Adji Sarr yooyu laa ko fan ba mu génnee rapport gendarmerie temps yooyu laa ne kii bu sonkoo nekkul président Pape Alé d'ici deux mille vingt sax war naa mën nekk président parce que président du affaire jàng du affaire diplôme mais don de soi la. nga war nga wane ne yow mën nga dee pour sa ta mais pap Alé bañ ko jàppee dugal ko ci kaso bi ci bu rapport rapport gendarmerie ci la ragal ba léegi nee na yor na ñaar vidéo nervi bi waaye ñemewu ko teg tapet la dafa commencé ragal waaw xeexatuñu la ñu gëmloo bu leen xeexate loolu ragal moo koy def ak lan Badio Camara éliminel Sonko éliminel Diomaye après dinañ joxañ euh, Habib Sy loolu la ñu bëgg gëmloo ñu ne ko ñun loolu duñ ci ànd ku fi joxoon ku fi joxoon ñu doxaan sax man nag Baye Fall laa bu ma neexee saaga wóoru ma de ku fi joxoon ñu doxaan sax man maa ko wax tey pap 111 bu nekkee ci euh, candidat ñun bokk nañ ci ñi nga xam ne dañ doon wax ne 111 dafa war a bokk par force mais ñu bëri Pape Alé da leen convaincre pour wax leen ne 111 warul bokk Sonko warul bokk garaawul bu boobaa mën nañ am sax Habib Sy Habib Sy tey bu nekkoon suñu candidat fan lañ jëm ki da koy saax-saax ak Amadou Ba sàcc élection yi te dara du yëngatu Abib Sy kan ma koy votal man dinaa votal Abib Sy xanaa man bëgguma dara pas bu xobe daas boobu la preuve depuis ba ba ba ba Diomaye nekk président candidat ba léegi est-ce que dégg ngeen Abib mu ne léegi man damay dem ànd ak Diomaye comme ni Cheikh Tidiane Dieye def paa yu xobe daas yooyu dinañ jël suñu suñuy vote dinañ ko jox yàlla moo ñu suturaal ma ñëwaat ci Amadou Ba li tax ma ne leen guerrier la Antoine Diome moo ñu sonnaloon ak Ismaïla Madior Fall ñooñu ñooñu sonal billahi wallahi taala surtout Antoine diom man Antoine diom ba ba ka Macky Sall ndare wacce RFM annoncé ne Antoine diom wacce nañ ko ministre ki lay doon chef de cabinet gëmuma ko ma ne Antoine du ko nangu chef de cabinet directeur de cabinet mom lañ def ismaël major mu nangu ko lool kuñ ko def rek mooy bokkutoo Antoine diom nangu bañ ne dang may jox pétrole mais Antoine succès bi Macky Sall am yépp Antoine Diome moko ko indil. moo tëj suñuy xale moo créé benn force boo xam ne day terroriser nit ñi di dem ci hôpital yi di jàpp nit ñi ah ay fital ay rey moom moo doon ministre de l'intérieur nañu waxante dëgg yëfu géeree la def créel créel ñu problème mais Amadou Ba moo ko génne parce que Amadou Ba dafa toog ak Macky la Macky ne ko dama lay def premier ministre yaay nekk sama candidat waaye Amadou Ba géeree la neex sedd rey la bandi cerveau la dafa toog ak Macky mu nekkoo ko dinaa nekk premier ministre mais Antoine du bokk kii du bokk Ismaïla Madior billaahi wallaahi taala loolu Amadou Ba moo ko def moo génne Antoine Diome ci ci ci ci ci ci ci gouvernement bi génne Ismaïla Madior parce que Ismaïla Madior moo ñu jàpp jàpp nit ñi di tëj mandat de dépôt mandat de dépôt ah Amadou moo def loolu mais nag len la promettre Macky boo de soo génnee am boo génnee Antoine Diome nga génne Ismaïla Madior man lépp loo bëgg dinaa ko def après yow yaay nekk président man dama la fiy toogal nii rek. mën na am sax mën naa toog ba 2029 après nga ñëwaat wax ak Macky Sall ne ko yow yaay nekk chef de parti gëmloo ko ay affaire ba Macky gëm Macky génne génne Antoine Diome Antoine Diome bu nekkoon premier ministre ministre de l' intérieur ba léegi fan lañ jëm Ismaïla Madior bu nekkoon ministre de la justice atwa Aïssata Tall Sall soxor na de waaye Ismaïla Madior ko gën a soxor fuuf bu nekkoon euh, ñooñu ñaar ñooñu bu ñu nekkoon ci gouvernement ba léegi yaakaar nga ne ay affaire amnistie yi dina am gëmuma ko. Antoine mii tok di wax ci pétrole bi guñu pour dem kon Amadou Ba bokk na ci li faussé calcul Macky Sall il a sauvé le Sénégal malgré lui Amadou Ba malgré lui légui ma jambal limu wax nañ ko jamb bu baax kii ne na euh, euh la